Euh, waaw stratégie bi nga xam ne moom la Pastef jël maanaam pour euh, am plusieurs candidats euh, déclarer plusieurs candidats déjà ci parrainage yi pour man c'est l'une des meilleures stratégies yi nga xam ne Pastef jël na ko depuis bi problème bi commencé ba léegi parce que soo xoolee Macky Sall ak ñi mu àndal ils ont tout fait donc seen force yëpp dañ ko focaliser ci Ousmane Sonko pour neutraliser ko donc musuñu woon njort que ni Euh, PASTEF en tant que organisation ak ni ñu joxe nopp Ousmane Sonko euh, dinañ xalaat que ni ñoom suñu euh, jéemee suñu naxasale la candidature de Ousmane Sonko ñu jéem a xalaat ci ay plan B donc loolu ñoom njortoon nañ ni loolu mënul nekk mais le fait que PASTEF ni ok on va se battre jusqu'à la dernière énergie pour que la candidature de Ousmane Sonko recevable ñu jël ko parce que c'est un droit et que parallèlement aussi dañuy dugal yeneen candidature yoo xam ni moo ñuy permettre bis bu ñu demee ba ñu jaay ñu doole jaay Ousmane ko doolee ni mënul bokk ci élection yi au moins dañu permettre ñu am un candidat boo xam ni qui pourrait porter les aspirations du parti. moi je pense que loolu c'est une très bonne stratégie boo xam ne dafay entraver euh, dafay annihiler stratégie yi nga xam ni euh, Macky Sall jëloon ko fexe ba maanaam lépp lu laale ci parti Pastef du bokk ci yile élection. te soo xoolee euh, li Pastef def euh, lu yenu maanaa la parce que Pastef dafa nekk ci position boo xam ne su ko neexee mën na parrainer plus de dix candidats non seulement waxuma la rek ci parrainage du peuple bi nga xam ne euh, Pastef mën na parrainer plusieurs candidats mais am na parrainage maintenant c'est des parrainages optionnels am na parrainage optionnel maanaam député yi mën nañu parrainer ay candidats Pastef am na lu mu dee dee vingt six ou vingt sept députés donc te treize députés rek soo ko amee mën nga parrainer un candidat donc ne serait-ce que pour les députés mën nañ parrainer au moins de candidats au niveau des maire aussi des collectivités locales il faudra avoir euh, cent vingt maires foofu aussi mën nañ fa parrainer ay candidats waxuma la nag euh, le parrainage du peuple bi nga xam ne fépp foo fëgg euh, soo ne candidat Pastef la parti bi reconnaître ko je pense que pour nga am Euh, les parrains requis du nekk loo xam ne lu jafe la donc parti bi gën a am possibilité actuellement au Sénégal pour avoir le plus de parrainage c'est le PASTEF avec ou sans Ousmane Sonko ça c'est une réalité waxoon naa ko ni maanaam même su fekkee dañu empêché empêché Ousmane Sonko mu dem donc candidat bu son Sonko porté ce candidat la sort au premier tour man loolu laa gëm certains parlent de deuxième tour mais dama ni au premier tour ce candidat là sort au premier tour loolu c'est une réalité politique boo xam ne c'est très palpable actuellement au Sénégal donc loolu je pense que il faudra jouer sur sa ñoom yaakaaroon nañ ne suñu empêcher Sonko mu dem c'est fini pour Pastef moo tax ñu neutraliser ko gis nga lañu ñu def euh, tas euh, parti Pastef parce que loolu dem na xel ak tiit parce que présidentielle ñëpp xam na ni candidat indépendant am na donc Sonko su ko neexoon ni man du ma dem euh, ci bannière Pastef donc damay dem en tant que candidat indépendant te day bokk wala mu dem ci euh, beneen bannière beneen parti politique te day bokk donc tas Pastef ci contexte élection yi nii amul sens en fait voilà juridiquement lu maanaam politiquement amul sens voilà donc même su amee effet juridique politiquement ça n'a pas de sens moo moo tax ma xam ne donc je pense que euh, Pastef euh, en tout cas pour man c'est c'est une très bonne stratégie boo xam ne dafay jaxase carte yi à leur niveau et que Pastef dafay jàll maanaam candidature yi dafay jàll parce que amuñu possibilité amuñu moyen euh, pour téye les candidats yi nga xam ne moom la euh, Pastef di parrainer pour pour fekkee dem nañ ba jàpp ni ñii la ñu bëgg euh, donc ñu représenter parti bi. léegi beneen fait aussi am au cas où effectivement comme ni ma ko waxee la candidature de Ousmane Sonko ne passe pas il faudra choix bi maanaam choix ultime bi ngay porter sur le candidat mu nekk quelqu'un boo xam ne dafay porte les aspirations du parti maanaam les aspirations l'idéologie même. et que mu nekk koo xam ne effectivement euh, dafay méngoo ak li nga xam ne moom la Ousmane Sonko di di incarné ak li mu mus a incarné voilà auprès du pouvoir mais également auprès du peuple donc c'est vrai que euh, gis naa Guy Marius jël na ay parrainage euh, Birame Souleye jël na ay parrainage Malick Ndiaye jël na ay parrainage ñeneen ak ñeneen mais c'est important le choix du candidat maanaam le choix final du candidat man dama jàpp ni aujourd'hui en tout cas ci sama xalaat bu bu gàtt un Guy Marius Sagna par exemple c'est quelqu'un boo xam ne il il pourra il il pourrait porter ces aspirations là parce que gis nañ ko en tant que député yépp promesse yi nga xam ne jëloon na ko à l'égard du peuple sénégalais bi mu demee assemblée nationale daf ko daf ko respecter c'est quelqu'un qui n'a jamais changé mais également sa loyauté à l'égard de Ousmane Sonko musul dañ donc il a été toujours prêt au pour défendre l'idéologie Pastef même si fekkee bokkul ci Pastef et que beneen affaire dafa am solo ci élection yi ñu jëm du rek parrainage du rek am candidat mais élection xeex la parce que Macky Sall dafa bëgg a fuqarti maanaam élection yi parce que yaakaaru ko encore une fois comme ni nga ko waxee ci élection parce que xam na ni aujourd'hui au Sénégal Amadou Ba boobu mu teg mënul am 10 pour cent wala 15 pour cent de l'électo de l'électorat sénégalais c'est impossible donc du coup dafa yaakaar ci ay maguy ci ay manigance pour jàll donc il faut un candidat boo xam ni candidat xeexkat la dafay xeex comme Sonko maanaam un candidat boo xam ni il est là pour se battre pour que maanaam la réalité maanaam le résultat des urnes au soir du euh, vingt quatre ou vingt cinq février donc mu man ko ñu mën ko respecter donc kooku nag il faut que même un un un candidat boo xam ne xeexkat lay doon ñafekat lay doon ragalul dara te loolu je pense que ñun ñëpp mën nañ ko nemmeeku wala ñu gis ko ci euh, par exemple un Guy Marius Sagna par exemple encore une fois euh, j'essaie juste d'analyser en fait parce que je suis pas de de de Pastef bokkuma ci instance yi xamuma lu ñu lu en fait xamuma également lu ñuy décider donc mais j'essaie juste par rapport ak éléments yi ma information yi bon j'essaie de comprendre et d'analyser maanaam li nga xam ne peut-être yaakaar naa ni lu man a nekk la en tout euh, le profil quand même euh, le plus proche de Ousmane Sonko donc c'est euh, Guy Marius Sagna euh, par rapport ak exemple yi ma joxe yépp encore une fois et que le plus important dama koy répéter mooy du gagner élection yi parce que xam na ni Macky Sall mënul gagner élection yi te un candidat de Pastef passe au premier tour mais ndax Macky Sall dina ko nangu wala def c'est ça la question donc il faut avoir un xeexkat maanaam xeexkat ñafekat ànd ak euh, état major boo xam ne dañuy pare pour xeex ma ki Sall ba urne yi li nga xam ne moom lay génne ñu mën ko respecter euh, donc au soir de l' élection donc euh, moo tax sama xel dem ci moom encore une fois je le répète je suis pas de Pastef je porte pas la voix de Pastef donc je suis pas de des instances de Pastef xamuma lu ñuy décider xamuma lu ñu nar a décider ce n' est pas pour influencer quoi que ce soit c' juste un point de vue bi nga xam ne euh, bëgg naa koon joxe par rapport les informations yi nga xam ne am naa ko euh, démb ak tey par rapport ak tout ce qui se passe actuellement au Sénégal donc yaa ngeen jëf merci beaucoup